Alhamdulillah. الشيطان الرجيم وإني أعيثها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بوكي جلدي نوي تاولو بوكي تالبي نوي دين نيو دي زيارة دي لين ndokkeel di am yéen i amaat ak yéen jataay yéen doon amal xissa yi yonente yi ci alxuraan di ko leeral mbokki jullit yi ngir ñu mën cee jàngate te jii ñu agsi ci sayiduna isa alayhi salaatu wasalaam sayiduna isa nag mooy ki mujj ci yonente bani israil yi alayhimu salaam su borom tudd na ko ci yonente yi mu nett li yonente bi ndax alxuraan dafa wax yonente bi ni ko yonente yépp net net liwuma leen net liwuma la leen waaye ñen nag ñi laala net li ñu gis net liwuma la leen te dañuy wax ni yonente yépp bu ñu àndee ak ñu ñu ñi ñu yónni ak ñi ñu sol ñëpp bu ñu àndee ñu ngi toll ci xakadun téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent ci ay yonent muy ku ñu sol yónni ko ak ki ñu sol te yónni wuñ ko bu ñu booloo ci lim boobu la ñuy toll fa xakadun waaye ñi ca doon ay yonente yu ñu sol yónni leen ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett alxuraan nag ñaar fukk ak juróom rekk la ci tudd ñaar fukk ak juróom yooyu Isa ibn Maryam alayhi salaam ca la bokk alxuraan nag da dul téere bi histoire dama koy wax jamono bu ne ne du téere boo xam ne taarix a ko tax a jóg tàmbalee ci bopp ba di nett li ba mu lu ci ne xissa bu ne day seet la ko ci gën a itteel nit ñi mën cee jàngale mu leen jubloo jàngal mu jaa mu tàmbalee ko foofu yamale ko foofu moo tax kon bu ñuy nettali histoire Isa dana ci am lool ci alxuraan lañ ci su lañ koy sukkandikoo li ci des ñu nettali ko jëlee ko ci boroom xam-xam yoo xam ne dañ koo jële woon ca téere yu jëkke ibnu Kasir nett na ci lu bari lu bari ci moom laa koy sukkandikoo insha allah waaye ma ne alquran nag am na ay aaya fukki maa yi natt lu mat juróom-ñeenti juróom-ñeenti saar yu bokkut yoo xam ne bu ci ne tudd nañu ca mbirum sayidna isa alayhi salaatu wasalaam waaye ci biir juróom-ñeenti saar yooyu ma ne am na ci fukki tomb ak ñaar yu fés yoo xam ne lu ci ne day leer mbirum sayidna isa boo gisee loolu laay jëkk leeral ba noppi loolu dugg ci détails yi incha allah bokk na ci li alxuraan andi leeral juddug Seydina Isa mu juddoo ci ndey ci ludul baay loolu suñu borom mi ngi ko nettali bi muy wax ci mbirum Maryam bi malaayika yi waxee ak moom ne ko suñu borom dana la may doom mu wax ni nan laay amee doom te kenn te jaxasuwuma ak góor suñu borom ni ko noonu la ko malaaka bi xamal ko ni ko noonu la ko suñu borom dogale daal la may doom joo xam ne daal mi ngi tudd Masih Isa ibnu Maryam Isa ibnu Maryam dana bokk ci ñi nga xam ni ñu ñu jublu la doon ñu ñu dëgmat la ñu doon ci àdduna ak alaaxira bokk ci ñi jege yàlla dana waqante ak nit ñi ci berso lalu liir dana waqante ñoom buy magum jëmm te ci nit ñu baax ñi la bokk bi mu ko waxee bi ko malaayka yi waxee loolu nag ci la laaja ni waaw nan laay amee doom te mbindeef lalu ma ñu ne ko kazalika allahu yaxluqu ma yasha suñu borom mooy doxe noonu lu ko neex rek lay bind isa xadee amran fa innama yaqul lahu kun fayakun lu muy dogal daal ci baatub kun fayakun la koy dogal waaye alxuraan tudd na it ne loolu yi kat kiimaan la mooy juddu ci ndey ci ludul baay waaye nag buñ ko xoolee ci kàttanu yàlla nag euh, lu mën a nekk la ndax génnul ba loolu lépp nag muy judd gi mu juddu ci ndey ci ludul baay wax gi mu wax ak nit ñi ci lalu liir du tere mukk rek mu nekk jaamu yàlla bokk ci mbindeef yàlla yi suñu borom misaal ni misaalum Isa moo ko aadama rek ña wala sax aadama kuy seet moo gën a yéeme ndax kii dafa judd ci ndey ci lu dul baay aadama moom dafa dafa am yàlla ko amal ci lu dul ndey ak baay jarul ci benn ci ñaar yi loolu la alquran di wax ne inna masala isa inda allahi ka masali aadam xalaqahu min turabin summa qaala lahu kun fayakun misaalum Isa fa yàlla moog misaalum Adama rek ñoo ci suuf la ko binde ne ko kon fee kon mu daal nekk waaye alxuraan leeral na it ni am na ci béréb bu mu leeral la ni Isa waxante na ak nit ñi ci ba muy nekk ci lalu liiram setal yaayam ci dañ ko doon tuumaal wax ni it suñu borom moo ko def mu di yonent dénk ko julli ak azaka li feeg mi ngi dund la sunu borom wax ci alxuraan ni xaala inni abdullahi aataaniyal kitaaba jaamu yàlla boo xam daal daf maa jox ab téeréem wa jaalani nabiyan def ma ma dib yonent wa jaalani mubarakan aynama kuntu def ma doon ku ñu barkeel su ma a nekk waaw feeni bi salaati wa dumtu hayya mu dénk ma julli ak asaka li feeg maa ngi dund wa barram bi walidati ma doon nit kuy topp sama ña wajur wii walam yaj'alni jabbaaran shaqiyya def ma doon kuy bandi bi def lu ko neex doon ma it ku texee di wasalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ubaasu hayya ñeenteelu li ci lu alquran tudd ci ci mbirum isa mooy leeral na ci béréb ne isa kat yonente bi yàlla la di baatam bu mu sànni ci mariam di ak leer gu bàyyi ko ci moom loolu mooy suñu borom wax ci aaya ba ni innama almasihu isa bi mariam رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها نخلون يالله ليرلنا ني عيسى كر دو جنب نك جنب يالله مم لواخين لن يستنكف المسيح لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ويسن برم لير اليدني عيسى ماكو يوني مو يدقل توريت waaye di dégle it ci dikkuk yonente bi muhammad salallahu alayhi wa sallam loolu alxuraan wax ne wa is qaala isa bi mariam ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min altawrati wa mubashiran bi rasulin yati min baadi yasmuhu ahmad loolu incha allah buñ duggee ci détails yi dina gën a leer ci alxuraan leeral na ci ba tey ne يعني عيسى دفع بني إسرائيل كي يقمكو قم لمولين عند الجويك في الله بكنا كي لمولين عند النك مدغنا للبني إسرائيل لن نكه لن لن يؤرى لن لن لن يؤرى مرون تنيوم غير يبلل دفع ملو خمد سنبروم جبلن يرموتهم مؤرى ملكو عيسى نلن لو لينك واتشن لنكو لك من عدل سواك لولمو مصدقا لما بين يدي من التوريتي ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ndax dafa am yoo xam dañ ko araamaloon ci ñoom ngir mbugale leen ko waaye du woon lu war a araam définitivement loolu mooy fa bi zalmin min alladina haadu harramna alayhim tayibatin uhillat lahum suñu borom leeral na ci alquran ba tey ci yenn ti aaya ne yàlla moo ko xamal alquran téere bi xamal ko xikma jàngal ko tawreet ak linjiil loolu mooy wa yuallimuhu alkitaaba wal xikmata wa tawreeta wa linjiila wa rasulan ila bani israil mu leeral it ni isa andil na leen kiimaan gu jóge ci seen borom kiimaan yim leen wan mu jóge ci yàlla nag mooy dana dana dana dana daana tabax ci ban lu mel ni am picc wol ko mu daldi naaw ci saasi isa daana fekk ku judduwaale ak ngumba docteur yépp tële ci ni mën si ko faj mu faj ko isa daana faj siti isa daana fekk ku dellu yàgg mu dekkal ko isa daana leen wax lañuy lekk ci seeni kër ak lañuy denc ci seen biir néeg te loola doon lu sori ab gisam kon dekkal ku dee ak sos ak dund te mooy def lu mel ni njanaaw mu tabax ko wol ko mu daldi naaw ak puus ab dund te mooy wéral ay tawat ak xaybu wu ko sunu borom xamal te mooy la ñuy lekk la ñuy denc ci suñu biir néeg ma leen ko leer loolu ay mujjisaat la yoo xam ne buñ ko dajalee bu ñu xoolee ci yooyu rek laa aju mooy sos ak dund wala delloosi ak dund wala delloosi jàmm te jàmm ab bànqaas la ci dund ak nag won leen loo xam ni lu sori ab jisam la mu doon kiimaan yu suñu borom def ci moom muy ay kaateef yoo xam ni bu sunu borom bindee ñoom ak ngëm danañu ci jaare ngir gëm waaye alxuraan it leeral ne am na ñenn nag ci bani Israil ñu ko wuy si ci woote boobu muy wote ba mu am ci ay ay saxaaba ay àndandoo loolu mooy ba Isa demee ba yëg seenu weddi la leen ak ginnaaw bu mu leen wan li leen ci ay kiimaan lépp mu yëg ni weddi woote nag ni leen kan mu may jàppale nag ci woote bii may woo woote jëm ci yàlla man ansaari ilallah foofu la ko xawaari yoon yi tontu ne ko nahnu ansaarullah amanna billah washhad bi anna kon noonu ko suñu borom dogale ci Isa la koy dogale ci yonent yëpp dogale ko ci bépp borom pas-pas fokk rek suñu borom dina ko dogalalal mbooloo mu bokk ak moom pas-pas boobee jàppale ko ca woote ba jël woote ba di ko jàllale ca ñañ ko mën a jàllale moo tax suñu borom bi ba Isa wootee ni ñan ñoo may dimbale ci sama woote bii ñuy woote jëm ci yàlla xawaar yoon yi ñoo ko tontu ne ko noonu ansaarullah aman naa billah wa shad bi anna muslimun alquran biral na ci birab ci fukkelu birab ne yahud yi jànkonte guñ doon jànkonte ak mbirum isa ak sàkku guñ koy sàkku rey ak xiirtal sax bor bi ci ko leeral na ndamu gu ndamu ci ni ñoom ñoo ko rey waaye suñu borom leeralaale ci biir ni kat ko musal yëkkati ko waaye ñoom rëyuñ ko salabuñ ko waaye yàlla da na jox niroolem da ko niroole ak nit ñu rey kookee jàpp ni kooke la ñu rey jàpp ne ay la ñu rey waaye Isa kenn rey loolu la suñu borom wax ni wa qawlihim inna qatalna almasiha isa bna maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu daa di wax ne rasulullah daa ne waaye nag rëyuñ ko salabuñ ko walakin subbiha lahu wa inna alladina ixtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilm ña cay wuute it ñu ngi ci ay sikk sàkk lañ nekk waaye amuñ ci xam-xamu yaqin bu leer illa itibaa danni wa ma xataluhu yaqinan bal rafaahu llahu ilayh fukkilu tom bi ak ñaar suñu borom leeral ci sàkku gi xawaar yoone yi sàkku woon ci isa mu wàcceel leen taabal ju jóge ci asamaan loolu ba tey mi ngi feeñ ci aaya bi suñu borom wax ne hal yastatiu rabbuka an yunazila alayna maidatan min alsamai suñu borom biral ni leeral na leeral na it ni wàcce na ni ni wàccuk isa ci barab leeral na ci ni dikkuk isa ci àdduna mandarga la ci mandarga bis penc mu wax ni wa innahu la ilmun lissaa am nañu jàng la alamun lissaa moy mandragam bés penc la ak wàccam lolou batay bokku na ci tomb yi alquran jot leeral alquran leral na batay ni isa gina bu ko yàlla yekete bis penc dana ko laaj ne ko a anta qulta lin nas ittaxiduuni wa ummi ilaha min dunillah ndax yow mi ya wax nit ñi ñu jël la yak sa yaay di len jàpp yàlla baye yàlla mu leral lépp isa weddi gum weddi loolu ni waxu leen ko subhanak maa yakunu lii an aqula lii maa an aqula maa laysa bi haqq ne ko mukk man ne ko waxuma ko in kuntu qultuhu faqad alimta bu ma ko waxee xam nga bu ma ko waxut xam nga loolu waxuma ko alquran leeral na turu isa aku mandargaam aku meloom ak aw dàkkentelam turu isa ci alquran mooy isa ñu di ko dàkken ñu di ko mandargaale almasiix di ko dàkkentale ibnu mariam aw meloom mooy abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaa ila mariam wa minhu isa turam ci ibriya ci ibraan mooy yasoo sin su wow ñu di ko bind yasoo sin su tooy lañ ci nam mooy kii xettali jaam ñi duñ di wax ni mooy sababu kii sowe jaam ñi ci réer gi ñu réeroon waaye nag li gën a ci li nga xam ne historiens yi bind nañ ko ci dund bi isa alayhi moy li may bëgg wax muy askanu isa isa ibnu maryam bintu imran imran nak aw askana buñ ko topé dana dem ba jokk ci yonente yàlla daawud alayhi salam mu bok ci sati yahuda yahuda kenn ci doomi yaqub yi de yaqub di ibnu ishaq ishaq di doomi ibrahim lolu mom euh estoy dëppoo nañ ci ne aw askanam lim nañ ko sax nag tudd ci ko tuddu tuddu tur yi waaye wuute yu bare moo tax ma ko tudd waaye lañu dëppoo daal mooy Isa ibn Mariam bintu Imran Imran askanam woowu bu ñu ko jàllalee mi ngi dem ba ci yonte yàlla Daawud yonte yàlla Daawud bokk ci sëti Yahuza Yahuza di doomi Yaqub Yaqub doomi Ishaq Ishaqa di doomi Ibrahim abul anbiyaai alayhim salaatu wasalaam loolu mooy li nga xam ni nettalikat histoire dëppoo nañ ci ku mel ni ibnu Ishaq ak abul Qasim Ibn Asakir ak te loolu it moo sax ci injilu matta juddug isa alayhi salatu wassalam sayyidatna maryam ab eh, ak ambam isa alayhi salatu wassalam ci injilu matta mu wax da cey wax ni maryam dafa am ku ko daan labat ku ñuy wax yuusuf an najjaar mu ni ba mu ci di ko bëgg nag jëkk muy ànd ak moom jëkk muy sóobu bu wóor mu gis ne dafa ëmb yuusuf doon nit ku baax lii may wax bible bi moo ko bind mi ngi ci ancien nouveau testament bi ci injilu matta mu wax ni Yuusuf noonu nit ku baax bëgguta wuññi mbiram waaye mu dogu ci bàyyi ko ndànk ci suuf génn ca mu dogu ci génn ci bi mu nekkee di xalaat ci mbir moom yi la ko am malaayka feeñu ci gént ni ko yusuf ibnu Daawud bul tiit mukk li ngay tiit ci soxna si amu ci ndax li mu ëmbi ruuxul xudus la leeru suñu borom la dana am doom nga tudde ko Yasuwa ndax mooy xet li ci seeni ñaawteef ñu wax ni nag bi Yuusuf yeewoo dafa sant yàlla dal di continuer wéy nag di ànd ak Sayyidatuna Maryam jël dundam waaye ñu ne ko daal mën nga ko bàyyi ba mu am doom nga dul koo jël waaye loolu yi ko ëmbal daal du jógewul ci doomu aadama waaye leeru suñu la suñu borom noonu la nettalee amu bi ne fa xamalathu fan tabadat bihi makaanan xasiya nee na bi mu ko amee dafa dal di randu dem ci béréb bu sori ibnu kasir wax ni mariam bi mu ëmbee daf ci am xat-xatu xol xam yét ni ñu bari ci nit ñi danañ coow tuumaal danañ yàq ab deram muhammad ibnu isxaqa di wax ni dafa siiw lool ci bani israil ne e, xale bu jigéen bee di doomi imran dafa ëmb te ci jaamukaatu yàlla yi la bokkoon mu wax ni am nañu ci ak jaax loo xam daal kër imran daal e, ak nit niti njabootu Zakaria daal am nañu jafe-jafe boo xam ni e, kenn amu ko ci ñun jamonoonteel nee na lenn ci naafiq yi tuumaal ko Youssouf moom yi ni kii ko doon bëgg di ko déclaré ak bëgg ko moo ko def te fekk moom mu doon jaamu ko ci yàlla bu daan jaamu yàlla di ànd ak di moom nekk moom ci jàkk ji loolu moo waral Mariam dem làqutu ji dem beru ji loolu yi mooy maanaam li suñu borom wax ci alquran ni fa xamalathu fantabadat bihi makaanan qasiya ba mu demee nag ba toll ci matu bi ko mat wi feeñoo mu wéeru ci ak ëkkub tàndarma xam na nit ñi dañ ko tuumaal te duñ ko dëggal mukk bu leen andilee doom rawatina nag mu bokkoon ci jaamkati yàlla yi ñi beru woon bokku ci kër nubuwa bokku ci kër diine yi gën a fës loolu daal jaaxal na ko moo waral mu amee ci njàqare lu rëy ba àgg sax ci mébét ni aka neexoon ma dee woon jëkk tey wala aka neexoon ma bañoon a am loolu moom la suñu borom wax ci alquran ni xaalat yaa mit wa qabla haada wa kuntu nisyan mansiya aka neexoon ma dee woon jëkk lii mbaa sax ma bañu na am waaye foofu mu mébéte loolu yi ci wetu ak utàndarma gi lañu wax ni ci la ko jibril wooye fanaadiha min taxtiha alla taxsani woo ko ci koronam ni ko bul jàq ndax suñ boroom defal na la ak dex ci sa pegg muy dex goo xam ni karaama la ci saas la ko la ball dex gu daw di ko ëkku tàndarma boobu mooy den den boo ko gësamee dana la andil tàndarma ju tooy nga lekkal te naan te dalal sa xel nit ñi xam sa mbir ak ñàkk ko xam du la wàññi dara bu ñu waxan bu ñu la laajee nag bu leen tontu nee leen dama ne seere woor tey ba du ma wax fexeel ba noppi rek nee leen du wax kenn tey ñoom nag dafa bokkoon ci seen koor ci seen charian bu ñu wooree dañuy bàyyi wax bàyyi lekk loolu xataa dama ko wax ak ñoo assudiyu ak ibnu aslam waaye ñun ci suñu charian bii nag dañ cee sib ko woor di ci boole di ñàkk wax woor ba tax doo wax dañ ko sib ci suñu charian Isa mi ngi juddu ci dëkk bërëb bu ñuy wax baytul laxam Bethléem ci bisu talaata di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre comme ni mu saxee ci taarix wax gi Isa waxoon ca bersu ba Isa bi mu juddoo soxna si jël ko ñëw ci nit ñi dafa nekk mbetteel ci ñoom mbetteel nag mën naa indi ay tuuma ñu ne ko yaa uta Haaroon yow mbokkum Haaroon ma kana Abu kibra asawɗen yiɗi ko yo de won nit ku mit sa nday di du won ap tiaxan kat lolla wax ni fa atat bihi qawmaha tahmiluhu qalu ya la khad jiti shay'an fariyan shay'an fariyan moy mbir mu rey mu mag mu di andi ko ñu ni nag li tax ñu nirole ko xaru di ko yawta xaru na dañ ko ben jaamukatu yàlla bu bokkoon ci ñi daq jaamu yàlla ci seen jamono ba Mariama daan géngeeg moom ci man a jaamu yàlla mu tuddoon Haaruna moo tax ñu di ko wax ne ko yow lu tax nga defee benn waay bu kàccoore la ñu jublu ko ñaawal tax ñu ne ko yow yow mbokk rakki Haaruna mbaa magi Haaruna loolu Saïd ibnu Jubayr moo ko wax am ñu ne déedéet Haaruna mi ci jublu mooy mbokkum Muusaa dañ koy nirale ak moom ci jaamu yàlla ibnu kasir wax nag ni ku ñu wax muhammad ibnu kaab bu dey alxurazi jóom na jóom na ci wax gi mu wax ni mariama mii mbokkum muusa la ak haaroon ci askan ndax diggante mariam ak muusa ak na ay seekal ay at yu bare bare dox diggante bi am na ci xadis bu wér ne Mariam dafa amoon mbokkum askan mbokk mu bokkal mu tudd Haroun loolu xadis bi indi ko ndax imam Ahmad nettali na jële ci jaare ko ci fa mu koy jaar ba àgg ci Mughira mu wax ni yonente bi daf maa yónni woon Najraan Najraan daanaka chrétiens yi jóge woon Najraan sax ñoo gën a sabab njëlbeenu Ali Imran lépp wàcc di wax ci mbirum Sayyidatuna Maryam mun Najraan googu ba ma fa yónnee dañ maa wax ne ma yéen li ngeen di wax seetlu ngeen ko waaye yaa ngi wax yéen a ngi jàng ci seen alxuraan yaa waxta Haaroon te diggante Moussa ak Isa diggante bi kenn xamul toll ay ati ati at la ne na ma jaaxle dal si yonte bi wax ko ko yonte bi ne la mënu ni ma mënu leen a xam mënu leen woon a xamal ne leen dañu daan tudde seeni yonent ak ñu baax ña leen jëkkoon seeni doom nga xam tëj ko rek ni kee lañ ci jublu mbokk Moussa ay turandoo la xataada ak ñeneen wax ne daanañu bari lu ñuy tudde turu Haaruna woowu ba wax nañ ne am na benn néew buñ doon julee lu mat ñeent fukki junni nit teew fa ñoo xam ñoom ñëpp Haaruna la tudd kon euh, tur bi Haaruna moom mën naa bokk ak Mariama benn baay bekk ak moom ndey ak baay waaye fekk dañ koy tuddee a mi nekkoon mbokkum Seydina Musaa waaye seen diggante mu sori na lool kon xadis bi lim tegtale mooy dafa amoon mbokkum askan mu tudd Haaruna siiwoon it ci ak jaamu yàlla ak mbaax moo tax ñu ne ko maa kaana abuki imraa saw in wa maa kaanat ummuki baqiya yow de bokkoo ci euh, dëkkoo foo xam ni daal lii seen màndarga la waaye nag ñu tuumaal ko rek ñootif ibnu jarir wax na ci ab taarix xam ni dañ koo tuumaaloon Zakaria muy ko yar yonte yàlla Zakaria ci boppam lañ tuumaaloon ni moom moo ko euh, teg loolu yi moo ko ëmbal ba bëgg ko rey mu daw bañ ko dabee mu dem ba jub ak garab garab bi xar mu dugg ci biir waaye seytaane jàpp ca catul buma ba tax ñu xar garab ga ba xarale ko ci digg ba mun moom lañu rey noonu moom Zakaria mi jóge xeex am ñu ni Yuusuf ibn Najaar moom lañ ko tuumaaloon moom mi ko doon bëgg ba mu daatan leer lañ ko tuumaal ñu da ko doon bëgg far def ci loolu lii waaye du wax ji bare yeddeel yi bari jaaxle yi bari ñu di ko laaj nanguwut a tontu waaye mu joxañ leen doom ji ñu gën a merati ne jàpp ni leen di gën a sabote ni ko kayfa nu kallimu man kaana fil mahdi sabiyya nan la ñuy waxante mi ngi nii di ab liir tëdd ci bi foofu nag la suñ borom ñëwee ak kàttanam wax lu Isa mu ni leen inni abdullah mën mii jaamub yàlla laa daf maa joxub téeréem dafa ma di yonent dafa may kuñu ñu barkeel fu ma mën a nekk dénk ma julleeg asaka li fekk maa ngi dund wasalaamu alayya yow ma wulittu wa yow ma amuutu wa yow ma ubaatu hayyan kon wax ji Isa jëkk wax dafa bëral ni moom jaawu yàlla la muy ak njaamam la jëkk saxal ba noppi luñ ci te mu doo ko caa teg daa di wax ne suma borom jox na ma ab téeréem def ma di yonante te yàlla de ak nubuwa du ko jox ku demee noonu yi ñu wax ndax kuréel ci yahood yi dañ daan wax ni wax ju ñaaw daf ko ëmb ci jamono yi bi rek noonu lañ daan waxee ci sunu mbon laanahumullah yàlla seetal ko ci loolu ñu wax wax ni Maryam siddiqa la ab doom ji ab yonente la bu bokk ci ulul asmi ñi gën a doon fi yonente sax ci la bokk moo tax mu ni wajaalani mubarakan aydama kuntu te mooy fa mu mës àgg moom ay saa di leen di woo ci jaamu yàlla wéetal yàlla ba mu ne dénk ma julli ak asaka li fekk maa ngi dudd it loolu mooy e, mission bi nga xam ni mooy liggéeyu jaamukaay jaamukati yàlla yépp muy taxaw ci àq yàlla taxaw ci rafetal si dëggati jaam yi loolu mooy liggéey bi jaamu yàlla yépp war a liggéeye waaye zakat jooju mu waxit nag ñu ne wax ne làmbowaale na laabuk euh, setu bakkan ci jikko yu rafetut yi làmbaale it setal alal ci génnee la ca war a génn jox ko fuqaraaw yi ak génnee ca àqi gan ñi ak di la ngay dundee la njaboot gi yépp bokk na ci tatahirul amwaal muy setal alal yi daa te nga wa barran bi waalidati wa barran bi waalidati ma doon kuy topp sama wajur wi wala may jàll jabbaaran shaqiya ndax def moo doon jabbaar te mooy kuy ñaaj def lu ko neex def may may ko taxee ni daal ni wa salaamu alayya yaa ma walit wa yaa ma amut ak yaayam doon ki ñoom ñaar yàlla yi ñu borom eh, xam-xam histoire yi di wax ni Isa bi mu ba am juróom-ñetti at la ànd ak way juram ñu dem ca haykalu suleymaan ca baytul muqaddas foofee lañ ko dugg la dugge nu néegu góor mu tudde ko Isa bi ba fan damaa ko way juram yu yaayam yóbbu ca haykalu suleymaan ñu duggal ko néegu mu tudde ko yasoo comme nekk ko jibril digale woon ba nga ko koy digale Isa màgg dund ci ron kaaraange ndeyam ñu sori lool baytu laxam gañ juddoo woon ga mu juddoo woon ñu dem ci benn tund muy ab dëkk bu kawe bu am ak dal ak sécurité am ndox mu neex lu yéeme la ndax aw tund la wax ba noppi tund bi en même temps mu am bërëb bu lu mel ni aw xur ba ndox mu neex mën faa nekk mu mufassiroon yi nag euh, tund woowu yi alxuraan junj wax nañ ci ñeenti wax yu bokkul ba ci jëkk mooy dañoo wax ni mooy Dimashq waxu ñaareel bi am ñu wax ni mooy Ramallah ci Palestine Palestine ñetteelu wax bi am ñu wax ni mooy baytul maqdis ñeenteelu wax bi nag am ñu ni déedéet misra lañ ci jublu wax jooju mujj jooju nag muy misra lañ ci jublu ji moo dëppoo ak li dikk ci injilu matta mu wax ni Eh, Isa mi ngi juddoo ci baytul lahmi al yahudiya ci jamono yi buur bu ñuy wax Hérode bi mu juddoo nag dafa am majuus yu jóge ca penku ñëw Jérusalem laaj ni waaw ana ki fi juddu fan yi mooy buuru yahud yi ndax ñun kat gis nañu biddiwam mu fenk ca penku yooyu ñëw nag ngir siyaare si ko buur boobu ñuy wax Hérode bi mu déggee wax yi dafa cee am njàqare moo ko waa Jérusalem yépp mu dajale mbooleem kilifa yi dajeetukat yi mooy ñiy gëstuukat te nekk tomb ak eh, boroom xam-xam yi laaj leen ni leen isa ibnu isa fan la war a juddoo masi fan lay juddoo ñu ne ko ci bayt la xam lay juddoo Hérode moomu daldi di woo majoos yi ndànk ca suuf wóorlu xibaar bi ak biddiw bi ni mu feeñe daal leen di yebal ca baytulaamu ngir ñu gëstul ko xale boobu judd mun leen bu ngeen ko gisee ba mu leer leeral leen ma ko ma ànd ak yéen siyaare ji ko comme ñëpp waaye bi ñu ko gisee ñoom ba dem ba gis Isa ba joxe seeni hadiya dañoo walbatiku suñu borom feeyu leen ci gént ni leen bu leen demaat ca Hérode ñu daldi di wëlbatiku jaar yoon dem ñibbi lii injilu Matta moo ko nettali ba ñibbi seen réew Hérode moomu gis ne majoos yi dañu ko woyafal dañoo woyafal kàddoom dañ koo xeeb moo tax mu mer daldi di ni bépp xale bu juddoo ci baytulaam ak la ko wër am ñaari at jëm suuf lu ci dara ci ñaari at jëm suuf rek ko rey dañ ko rey Yuusuf daal di gént ci ngir gént ñu xamal ko ni ko jëlal xale bi ak yaayam te daw dem Misra toog fa loolu moo waral Yuusuf jël Isa ak ndeyam daw dem Misra foofee la ñu nekk toog fa sax fa ba Hérode moomu faatu bi mu faatoo Euh, mu feeñuwaat ko moom malaayka mu feeñuwaat ko ci gént digal ko mu dellu Israil waaye bi muy dellu it mu dégg ni doomu Hérode moomu ñu di ko wax Arxilawus Arxilawu moo fa wuutu baayam mu ragal ci lam doon ragal ci baayam moo waral mu dem fu ñuy wax Jalil promesse bu ñuy wax Jalil dem ci dëkk bu ñuy wax an Nasira naasira googu mu dëkk fa nag foofu la ñuy askanale nasraan yi mooy dëkk bi Isa dëkkoon foofu yi ci Jalil moom la ñuy askane nasaraay loolu daal mooy gàttaluk li injilu Matta nett li ci mbirum demuk Isa ak yaayam ca Misra eh, te mu dëpp ak eh, rab boobu bu alxuraan tudd وأعوينهما إلى ربوت ذات قرار ومعيد آه، ربو جوجين يدون نتبلي تجني وخن اللي لجين اللي لجين اللي لجين مصر لا مصر يجي لا وخني مو دفو أك لي نكيشي إنجيل متى الله أعلم عيسى بابو موجوغي مصر دي نوات ميجي تولي تجيروم ناري أت بابو نغلا ماجيشي خيوال أك حكمة wax nañu ne bi mu demee ba am fukki at ak ñaar la ànd ak ndeyam ak yusuf moomu ñu dem baytul maqdis ngir aji fa ci ni ko sharia bi nekk ci taw di déglee ba ñu demee ba jeexal seen ñaan ñu wër ko gisuñ ko ñu dellu seen barab jàpp ne dafa ànd ak ay bañ demee ba ci dëkk ba fekkuñ ko fa ñu am ci jaaxle lool di ko gëstu di ko wër di ci sonn ñu ba am ñetti fan dañ ko fekk ci haykal ba mu nekk ci digg borom xam-xam ya di weranteeg ñoom ci sirrub nubuwa ñu yéemu lool yéem nit ñëpp ci laaj ya muy laaj ak tontu ya tontu ak ku ngoneem nga xam ni sax euh, tàmbalee gu te jàng yaayam yedd ko lool ni ko li nga teg con yi mu ne ko nag xamal nag ni euh, liggéeyal yàlla nag moo jiitu liggéeyal way ñaari wayjur daal di ànd ak ñoom dellu naasira eh, taxaw taxawaay bu rafet ci li ko war ci wayjuram muy sayyidatuna Maryam comme ni ko suñu borom waxee wa barran bi waalidati wa lam yaj'alni jabbaaran shaqiyan wa salaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'asu hayyan dañuy wax nag ni histoire nag nettalikat ci histoire dañuy wax ni taarix nag ginnaaw bu mu amee ci ñaar waxaatunu ba ni mu amee fanweeri at ba nubuwa gi ñëw kon incha allah dërsi bi ñu jëm ci la ñuy ci risalatu Isaa alayhi bi mu amee fanweeri at di ñaan suñu mu defal nu ak dégg ak jariñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa